ziyaare ñëpp tey jéggul ci kàddu yi yaakaar naa na ko sëñ Yuusu waxe leer na kàddu gi moom benn la mooy dañoo doon ay murit doon ay taalibe di sàkku ngërëm sëñ Tuubaa kon nag li ñu indi si daara ji mooy jëfe ndigal bàyyi tere nu ma ko faree di nag ay mursal lañ mursal nag mooy kuñ yónni ñun nag yaakaar naa jataay boo xoolee muy man muy si mu joxaane muy si Matar Jenn si Souleymane Fall ñu ne teg sa bopp ba ñu ànd ak ay euh, lu tollook ñeent fukki kuréel ak benn jiite leen ci liggéey bi loolu nag du suñ njàmbaar du suñ judd du suñ askan lépp ndimbal sëriñ bi la kon nag euh, nañ moytandiku mu jub sa mu réer ñi wax nii ñoon seen Yuusu Jóob bi fi nekk ñoon seen Lam Diouf ñoon seen Moussa Ndiaye ñoo ngànkoon liggéey bi kon nag dafa dox ba egsi suñu loxo ginnaaw dafa egsi suñu loxo nag nañ fexe nag ba ñu nekk si suñu ginnaaw ànd ñu di liggéey sëriñ bi bu ëllëgee euh, bu ñu koy nettali ji fu ñu taxaw dañu mën a sikki kon nag ay mursal lañ mursal nag mooy ku ñu yónni àdduna si yëpp ñu ngi bàyyi xel luñ sol gone yi mel ko luñ naan gone yi naan ko ñu tëddee nu ñu doxee gone yi doxee ko kon nag benn googu sëñ Muntaxa wax yaakaar naa euh, euh, tey moom jeex na kon diggal li mooy jëfe ña nekk Dakar. àndul doon benn ñu nekk Touba si ndi njiital si Matar Jenn àndul doon benn kuréel national gi si Matar Jenn nee naa ko place bi ñu toog euh, suñ Touba la njër seere mate na ko mën na koo doon kon nag ànd na yow nga nekk suñu kanam ñu ànd yoo topp ñu liggéey suñ Touba jërëjëf